ñaanal leen ñaan sëñ Bass tëj ñaan gi ci sunu néew yi nga xam ne noonu ci almeeri Yoff yi ak ci Sénégal gi yëpp jërëjëf ci bismillahi rahmaani rahim waaw waaw jàng gi te yéene leen te yéene ko mboolem jullit ak suñu mën a nekk ci àdduna amiin fatiha bu sell boo jëtlee salaatu ala nabi moo mën fatiha da ku nekk def fatiha ak salaatu ala nabi bu mu waaw nañ jiital nañ jiital salaatu ala nabi teg si fatiha. nañ jiital fatiha. salaatu ala nabi teg si fatiha. kursi. ayatul kursi. lixlaas. ñu mën a nekk ci kaw suuf. rawatina ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk suñu tànk yi. denc ci armeel yi. bisimilah. كان لديني سرور بيومه وزيرا بالأكمار سليت وابنا سبان جنة وسيسلا ما سرندم بابا أشكر النعمة لي وبالله يا صغيرانا سمع ماما يا صدفانا خيب سعنا إبت الله ومتداء طلق نار سبب خطينا سبب بينا النار سمع بينا سبب خير بلاد خير ñi fi jóge de am nañu sëñ Tuubaa wax ci ñoom ba tey na ci nee na wa aqabu asyaai lil amwaati raddun ila dunya maa xayaati ba bay di jaar ku faatu li mu gën a bëgg dellu si àdduna dundaat lu waral ñoom ñu yàkkam ci bëgg dellu si àdduna ñi fi tëdd ñëpp ba ci ñi fi tëdd tey suba ku ci sañoon da nga dundaat waxtu wala lu néew néew ngir bëri ko def lu baax ku xam nag ñoom noonu lañ bëgg di ci àdduna ci mu wóor la ne koo xas andi ji ba denc ko wala fa ne moom dootu dugaat kooku war nga ko dimbale li ñu ko desee suñu ñoom muy ñaan ñaanal yang ketemu solo lool waaye nag nañ fàttali ko ñu fi jóge desee ci ñoom ñoom lu la lu ñaan da nga gis léeg-léeg ndaje mu mag cérémonie bi léegi ba tax na sax dañu war a ñaanal nañ la ci fàtte te loolu dëgg dëgg bu ñu waxante dëgg faatu moom li ci jëriñoo dëgg dëgg moo ñaan kon nañ ñëpp di la ñaan bu baax sëñ tubaay ñu ngi wax feneen ci doa yan faw may tan fil qubur wa yan faw xay yow yi ci budu nee na ñaan baax na lool dana jëriñ ab néew bu nekk ci bàmmeelam waaye nag dana jëriñ ci dund kon nag alhamdulilah ba ñu ni ndaje mi li ñu fi daje rek mooy ñaanal ñi nekk ci néew yi seen i barab moo xam ñu ngi fii ci armée yi moo xam ñu ngi fu leen yàlla mën a teg waaye nag ñaanal ak ñi nga xamante ni ñooy dund loolu daal kon ñaan am na solo ñaan bi naan ak doa silaaxul mu'min mooy ngànnaay jullit kon nag ngànnaay bi nga xam ne yow sëñ Mouhamed moom nga jël muy ñaan jaare ci na nga xam ne ngànnaay bu rëy rëy da lu am solo. waa Touba yàlla fi seen aada si bu Tiwaawan ñii fi laajee ni yaa ngi fi kenn manqué wu bis bi nga xamante ne moom la doon def nii tey képp koo xamante ni yaa ngi feebar nekk ci hôpitaux yi ñoo xam dañoo génn àddina mooy ñii tëdd fi nga xam léegi mënulul seen bopp dara dañoo daje ñu wàcc leen kaar yi mbas mi mu ngi des àddina di des wéeru yëpp

wala dem Touba bàyyi léppam ñëw toog ñuy sama wet ànd ak docteur ak ñi muy àndal ñëpp dafa am solo sëñ Abdou Aziz mii ku nekk xam na taalibe yi am ci ci àdduna sëñ Amsatu Mbàkke mi ngi noonu yoon bi di ñëw imam imam Pape nga xamante moom euh, grand sëriñ de yee bokkoon ndey baay mi ngi fii ci pénc yàlla gën a ñu yàlla sunu borom bi ñii dee ci mbas mi yàlla nga leen yóbbu àjjana na nekk ci hôpitaux yi nga xamante ni jógatuñu mënatuloo dem noo ngi ci dund ak dee yàlla nga leen yëkkati ci barke Bam Borom Touba ci barke El Hadj Malick ci barke Seydina Limam ci barke Baye Niass billaahi na nga koy ñaan yàlla na ko yàlla nangu.